jàppal samay loxo yow mal xasri foo mën أحمد تیجانی خوز بيدي خوز بيدي ديكو سيتي لوم لا واخ باغا تا انسبيري واي وي اندين اسوار jàppal samay loxo yow mal xasri fo mën jëm waaw waaw nan bàyyi xel ay waxam tey topp ay ndigalam ay ndigalam sama turando waaw waaw lum nu waxit nan ko def te xam ni lor du ca am àllarba ca lan ma baada salaatil ishaa naan ma tiis wi dal kër Maodo maan ma gëlëm ndekete yoo magu Baay Abdul Aziz asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi yéen ñi safoo tey seetaan Ah, ñoo ñëwoon tey fii ci Mandela ci programme Ousseynou Khoulé bi tax san sëñ Babacar Sy bi mu taxawal fii ànd ak sama caméraman yu ñaaw yi ca topp leen ma ñu dugg ci biir xool programme bi nan lay tëddee yooy ba am nañu xam sëñ Abdou moo ko jullee si yéen sa kenn desul xam ni kii du ko ndaw billaahi moo ko jullee si yéen sax kenn desul nga xam ni kii du ko ndaw billahi moom ñu bëgg a yëkkati tuuti kàddu rek ñun la man la Ousmane Seck président soldaaru Serigne Babacar Sy Pout ñu bokk ci daayira coordination des jeunes tijanes de Pout tudd Xubutaaxa suñu njiit di imam Modou Fall ñu ngi koy nuyu au passage dañoo ñëwoon fii ci bésu Ousseynou Khoule bi fas yéene koo jàppale jàppale ko bu baax a baax ndax moom suñu xarit la suñu wërle la suñu lépp la waaw gis nañ tamit liggéey bu rafet bi muy def ci kër gi ci si taxaw moo tax ñun ñu ñëw fas yéene jàpp ci liggéey bi lépp loo xamante ne liggéey la ñun soldaar Serigne Babacar si fas yéene nañ koo def jàppale ko bu baax baax na waaw fépp foo xam ne tam ñi fay séentu it yaa yalla yàlla jàppale rek ñu def lu sut loolu vraiment Ousseynou mo mënuñu ko fay suñu waay la waaw bokk nañ ci groupe bu soppee duudu bi ak yeneen ak yeneen gis nañ tamit yu baax yi mu def ci dëkk bi loolu moo tax ñu ne incha allah nañ ñëw lu mu war a yëkkati ko ko lu mu war def rek incha allah ñu def asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp wax dëgg yàlla di rafetlu aussi bés bi ñun ñooy coordination des jeunes de Pout et banlieue Waxu bu Taaxa ñun ñoo ñëw fii tey ci bésu Ousseynou bi pour jàppale ko ñun nag ñooy soldaar yu jigéen yi ñooy nekk ci organisation bi ak ci waañ wi sunu góor yi ñoom ñoo nekk nii ñoom ñoo yor wàllum bâche beeg les autres ñun moom ñooy nekk ci waañ bi jàppale ko ci bësam defarle ko ba mu baax parce que Ousseynou dafa nekk nit bu baax bu yaatu koo xam ne dafa bëgg waa Pout bëgg suñu coordination bi te bëgg boo gis yëg moo koy fay te fas nañu yéene lépp lu mu sumb rek ñu fekk ko si jàppale ko si manam lepp lu muy sént ci ñun daal gis lu kawe tam franchement mënuñu ko fay luñ ko defal tamit mënuñu ko fay yalla daal lañ koy booleel di ñaanal réussite totale ci bëss bi lepp luñ ci bëgg rek yàlla na yalla defal te mu doon ndik njiglaayam wax deug yalla contane nañu ñun ñëpp sax merci beaucoup. salam soxna si. maaleykum salaam. na def. ma ngi fi. wa waa El Vision ñoo fi ñëwoon tey di leen laaj sa taxaway ci gamu gi ak la moy setank ak fan ngeen ko waa ñun ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Mohamed nañuy gërëm suñu ñaari waajur di sant suñuy sëriñ aussi bu baax a baax a baax parce que ñooñu ñooñu kii daal ñooñu orienté ci yoonu yàlla ñu leen di ñaanal bu baax yàlla yokk seen leer taas ñu seen barke ñun nag waa Pout lañ Pout lañ jóge ñuy ñu ñuy wax euh, structure soldaaru mbay soldaaru mbay nag boo ko déggee mooy ñoo xamante ni si liggéeyal Serigne Babacar ñoom ci Serigne Babacar la ñuy yendu ci la ñuy fanaan ci Serigne Babacar si lañuy seen yitte yëpp ci Serigne Babacar si lañ ko def lu mbay wax loolu la wax lu mbay waxul waxuñu ko ci loolu la kii di ñaan yàlla yàlla nangul ñu suñu liggéey ñu ñëwoon fii nag si Sicap Mbao jàpp ci bésu Ousseynou Khoulé bi ndax Ousseynou Khoulé dafa nekk koo xamante ni si suñu grand frère la suñu lépp la wax dëgg yàlla ndax gàmm gi ñuy def puut mook lu luñ ci dul def rek amul seen waa famille yëpp saay bu gàmm gi ñëwee kaar la ñuy def ñëw puut taxawuñu franchement seen kër dal lay nekk ñu indi seeni gan foofu seen mbokk bu ñu xam dañ koy yëgal gàmm gi ñuy jàpp ci bés boobu bu baax a baax a baax a baax loolu nag moo waraloon suñu teewaay fii tey parce que seen Khoule moom fu mu ñu woo ci àdduna dañ koy wuyu bu soobee yàlla ak fu ñu mën a woo nag dañ koy wuyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax ji nañu teraanga boobu daal lim ñu lebal ñun mënuñu ko koo fay mais dañ koy bàyyi ak yàlla ak yonent bi ak Serigne Babacar bisam bii nag di tàkkusaanu Serigne Babacar si lépp lum ci yaakaar yàlla na ci yàlla def lu kawe njortam ci barke Seydina Mohamed lépp lu mu ci yaakaar yàlla na ko ci yàlla def yàlla bu yàlla tas yaakaaram ci Serigne Babacar si li mu bëgg ba tax mu jël léppam jox ko Serigne Babacar ndax heure bi waroon na koo fekk muy organiser ay soirée wala genre mais. mu jël yitteem yëpp def ko ci Serigne Babacar tey mu wootee tàkkusaanu Serigne Babacar Ousseynou maa ngi koy ñaanal ci le 18 mars bi yàlla na ko ci yàlla fay lu kawe njortam ci barke Serigne Babacar te day avancé incha allah Serigne Babacar si moom ay mbiram noonu la moom boo ko lebalee benn mu fay la fukk incha allah lu baax rek lay am ca kaw ca kanam yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm aussi yàlla na ko yàlla musal ci bépp musiba ci barke Serigne Babacar وجوفا وحملة في حرز حمايتي نيكو نياري لا لا دون de rawar مان تشيون و سيري شيخ نيكو بالا nga dem amna lettre bo xamni fokk ma jox lako nga yobale ko defena wayna ko legui de moy naxna ola du tidiane waye ndeysan njogu mbuk da and ak domam jo xamni neena ma fonu dajje te waylo ma naxnu awladu tidiane dina la mere waye wayna ko ti fekk ko fi xana ma wax ci ben bayit rek jox sëñ saam nahnu awlaadu tijaani saam min nubuwatil maani ee ku sopp Seydina Cheikh jógal taxaw ay awlaadu tijaani waaw tey dañoo jaar ci waañ bi fekk suñu yaay baax yi di leen laaj nan lañu nekkee ci bis bi ak nu ñu toogee ci waañ bi préparation yi beeg togg beeg noonu yaay booy naa de maa ngi waaw maa am jàmm sant yàlla. waaw ñu leen laaj tey seen taxawaay ci bis bi ak nan ngeen nekkee ci waañ bi ak nan ngeen préparé bis bi. waaw xanaa di sant yàlla di jubli sangu sang yi di ñaanal yàlla borom bis bi rek yàlla na ko yàlla yokk ba mu yokkoo lu mu mën ren ren bu déwénee yàlla mën lu ko lu ko raw di sant yàlla baax ndax ñun ñu nekk ci waañ yi sant yàlla alhamdulilah ndax lépp mat na tubaakaala macha allah ndugg mi jaar na yoon. togg gi jaar na yoon ñoo ngi nii di ci nekk rek di fas yéene defar ba mu baax rek di xaar guddi gi ñëw di fas yéene toog ñaan yàlla bu déwénee rek ñun ñëpp yàlla nañ ko teewaat yàlla nañ ko yàlla defal may ko gudd fan ak wér gu yaram moom mi nga xamante ne moo sémb lii yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko te bu déwénee yàlla na mën lu ko yokk yàlla na mën lu raw lii ci barke yonent bi yàlla na ko yàlla defal waaw kon ñoo ngi ci waañ bi ba tey fekk sañ yaay ji nga xam ne moo jiite waañ bi doon ko di ko nuyu di ko ziar. Elvision Média ñoo ko seet si woon di ko laaj lu mu xam ci bis bi ak waañ bi nan la ci nekkee ak nu muy préparé bis bi yaay ñoo ngi lay nuyu. fay naa leen. ñoo lay laaj sa taxawaay ci bis bi lan la woon. gannaaw bu ma sante yàlla di jur ci Seydina Mohamed maa ngi gërëm samay waajur di leen ñaanal fa ñu nekk yal na yàlla oyofal suuf ci seen kaw. sant gi nag maa ngi ciy gërëm maa ngi ciy jiital Ndeye Diakhaté ndax moo tax ñu xama xamanteeg Tane Fatou euh, taxawaayu waañ bi moom macha allah suba ba tey lépp jaar na yoon ñu ngi ko fas yéenee commencé ci bisimilah rahmaani rahim di ko jeexale ci alhamdulilah rabbi alamina di ñaan seen jàng yi yàlla na yàlla nañ ko gën a def mu law te yàlla def ci ay ndam wàcc ci ay xéewal di leen ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal seen taxawaay yàlla na yàgg. lépp daal ci waañ bi dara manqué wul lépp doy na léegi suñu loxo ci rek ci des di ñaan yàlla ñaan na lépp jaar yoon daal. amiin jërëjëf kontaan nañu. maaleykum salaam. yaay booy naa def. sant yàlla. maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. maa ngi la koy delloo. di la laaj tey sa teewaay ci bis bi lan la woon tey waa El ñoo la seet si woon di la laaj sa teewaay ci bis bi. teewaay ci bés bi. xanaa man da bi ma sant yàlla julli ci Seydina Mohamed. sant sama ñaari waajur yi ngi sant di sant borom kër gi alaaji moodu xulle sama rak di ñaanal fan bu guddu bu and ak wër di ñaanal yalla taxaway jëm ci kaw ci kanam ci barke serignam serign major borom daara ji ma ngi koy ñaanal mu fekke léppi njabotam ma ngi koy ñaanal yalla bu ko kenn ginnawam mo ngi njabotam gu góor ak gu jigen ay soxna mbollem jullite yalla yi ma ngi ñaanal ñep di ñaanal nak tay ji nak ki waral bés bi ki waral bés bi nak ñukoy koy wax Ousseynou Ousseynou ñu koy dàkkanteel ci al amin tabar fakal la moom itam yàlla na yalla guddal fanam ak rakam ak magam. Ousseynou Khoule. wa Ousseynou mom laal ngeen sama xol moy sama borom ke bes bi nak mom ah. ñu commencé ko ci bisimilaay jeexalee ko ci alhamdulilah rabil alamin Ousseynou nag moom ku ko xam-xamee ko diine wax dëgg yàlla lii man lii mën mën naa ne lii néewul lu njëkk daal li ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla guddal fanam ci barke sëriñam sëriñ Abdou Aziz Sy Al lafal ko cat daal waaw boroom kër bu baax la ku ma bëgg yiir ma waaw taxawuma ma maa ngi koy ñaanal mu dund dund ba kii doomam jee Al Amin mu ndaw di ko yóbbu màkk ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi nekk ci borom bis bi Ousseynou Khoule. waaw Ousseynou moom boo ci laajee dinañ sawar tontu ci ak bis bi ndax sunu doomu nijaay la pare muy denc sama mag nekk nit ku baax koo xam ne am na yar ci diine dañ ko xamee yàgg naa bëgg al amin ba duppee ko doomam kon dañu naan yal yàlla yàgg taxawaayam. lépp lu mu yóotu mu jot ci bisam bi macha allah mu réussir comme ni mu daan demee ndax yàgg naa ko def ay ati ati ati at di ñaan yàlla li bëgg ci xolam yàlla def ko ko may ko ci soxnaam wërsëg kóllëre gu yàgg macha allah mu saamu ko nekk nit ku baax a baax may ko gudd fan wér gi yaram ak njabootam ñëpp ñëpp macha allah daal zéro macha allah. waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli séentu bi sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp vraiment bés bi dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim fas yéene ko jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin xam di sant euh, mm, xam nga sama papa bu baax xam nga jox na ma nag bu rëy rëy rëy tamit di sant waa kër gi ak waa waañ bi ñu doon togg añ bi ak sama xarit jógee ba Tiyaan waa 100 pour cent Ahmadou Kenn Mbay xam nga fu ne nit na fa daal maa ngi sant yàlla daal bu baax a baax a baax a baax bu baax xam nga di sama soxna sama rakk yi sama mag yi ah, am naa contentement bu baax a baax a baax xaaral jox Abdou Moustapha xam mu saan ci ay quelques cadeaux rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di leen baalu ak di leen baal bu ngeen gisee lii nag dafa am bis bu rëy bu xew le 18 kan moo ko organisé Ousseynou Khoule jàmbaari Seydi xaaji Malick bi boo nee Serigne Abdou Aziz Al Amin sa xel dem ci moom lu ko may loolu pas-pas ak doyloo sëriñ Abdou kon sunu teewaay bi boo ko gisee moom moo ko waral muy ku baax. di taalibe surtout liñ ko jàppee ñu def délégation bi waa coordination alxaaji du Kenn Mbaye pas-pasam la ak dëggoom ak nekk taalibe ci kër xadara kër Cheikh Sidi Hadji Malick dama naan ko nit cër boo am yow yaa ko may sa bopp cër kenn du ko wuti nee naa nit booy wuti cër boo moytul di nga ñàkk la nga jasoo am waaye moom cër bi mu am moom moo ko may boppam li ko may mooy pas-pas nee naa ko Ousseynou day def ci suuf te du wax te kiy def di wax kooku yàlla taxul te moom day def yàlla kasay tax danaan man sama alal boo waxee sëriñ Abdou Aziz Sy Al lu ma jox mën naa koo xëpp jox la ko te loolu wane na ko kon daal di ko ñaanal bis bi nga xam ni summ na ko muy bisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ci sargal sëriñam Mawlaay sëriñ Abdou Aziz Al Amine mi nga xam ni yàqul kër baayam dama naan sëriñ Babacar Sy bi sëriñ Abdou Aziz Al Amine génnee àdduna ci la ñuy wax sëriñ Babacar Sy mi ngi soog a dem doyloo xadara koo xam te ne xadara ka Cheikh Seydi Hadji Malick ñëpp ko doyloo kon di la wax bis bi yàlla nga ko yàgg taxawu ci barki Serigne Babacar Sy di kontaan ci ñëpp nga xam ni ñëw nañ ci bis bi ndax am na kilifa yaa ngi ñu ngi ñëw ku mel ni alxaaj dut kenn moo koy taxawee ak Serigne Moustapha si bu Serigne Abdou Aziz Al Amin ah ànd ak nag ay délégation ku mel ni Seydou Sy ñëw na bu Cheikhouna Ahmed Tidiane ñëw na sëñ Habib Sy ñëw na moom it sëñ Adama Thiam mi nga xam ni moom it dama naan ko yow yaay nijaayu groupe bi muy nit ku baax di borom pas-pas di nuyu nag sama xarit sama doomu ndey du Pam ma Makumba Siis moom it di nit ku yaru di nit ku baax soxna Baratu Mansour ñi war a ñëw ñëpp ñu ngi ñëw comme xam naa dañ ñun dañoo jiitu si rek waaye yaakaar naa Ousseynou lu ko waay defal euh, xeeb nañ ko kon bis bi daal yàlla nañ ko yàlla def ñu yegg ci bismillahi rahmaani rahim àgg ci alhamdulilahi rabbil ci barki sëriñ Abdou Aziz Al Amin wasalaamualeykum wa Serigne Cheikh ne sama turandoo ni ma beneen bi ci des neel taalibe yi ku ci wutati projet bu mu projet bu tuuti na wut projet bu rëy rëy ndax man Seydina Cheikh sama taalibe fu mu nekk maa ngi ci ginnaawam di ko surveiller muridi xëy sukaana sharxan wa maxriban wa jawfan wa xiblatan fi xirri ximaayati ni ko ñaari laa la doon doy orowaar maa ngi wa Serigne Cheikh ni ko bala ngaa dem am na lettre boo xam ni foog ma jox la ko nga yóbbaale ko defe naa way naa ko léegi de mooy nax na ola du Tijaan waaye ndeysaan njoogu mbuub daa ànd ak doomam joo xam ni nee na ma fonu daje te wayloo ma nax nu awlaa awlaadu tiijaani dinaa la mere waaye way naa ko fekk ko fi xanaa ma wax ci benn bayit jox siñ saam nax nu awlaadu tiijaani أشباع الوضع لا تنجح بيزا لا تنجح بيزا لا دنيا والأخرى وفي دنيا والأخرى أي سما صلاة أي سما جاك نيل النيك الورقي سما صلاة خير البرية اختا محتخيا Oh, الكتيب أوقد يا أبي الآيات والعباد محمد أشرف الآيات شافي شافعنا محمد نور الهدي daf kon nangoo jox cër ko bokk ci kër gi la kon nag wax dëgg yàlla bu ñëwee fii ñi ko xamul woon xam naa ñi ëpp ci nit ñi xam nañ ko waaye ñoo xam ne kii moo doon loxo Serigne Abdou Aziz Dabakh yal na yàlla yokku leeral li bind lépp ci loxoom la jaar kon nag Serigne bi ñu ngi la dara dafa am yeneen programme yi muy dem ndokoon dañ ko téye te kenn yëgalu ko woon sax bis bi waaye moom lu ñu yëg bokk na ci masalla yal na yàlla guddal fanam yokk yéeneem li moo nekk ci dara yi ku ne xam na ni fi ne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 moom buur bi nga xam ne moom rek moo yeeyoo kañ moom buur bi nga xam ne moom rek moo yeeyoo bàkk nu ñu mel ak lu ñu am moom la na mu ko soobee ak na mu ko neexe rek moom suñu boroom bàkk boppam wane boppam ci ñun ak suñu matadi waaye buur boobu nag du fi jóg mukk te na ko soobee ak na mu ko rek noonu lay doxe ما وحنا وتلك الآية ونضاربها بين الناس بربو نكن لا كون دوني جوب ديكو سانت تي خيوال يري ليغا خامني اك سونو متادي مو ديفال نيكو فتبارك الله موتاخ سي نام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله عنه leppam cant la jëm ci kan kiyeyoo kañ kiyeyoo bàkk moo tax mu ne alhamdulilahi zil ijabi walqidami waaye alhamdulillahi zi taysiiri yàllaahu jëm ci kan suñu borom rek kon buur boobu tey moo ñu baaxee ñu dékkoon suñuy loxo ñaanoon ko ne kat bëgg nañu fekke bëgg nañu fekke ndax am na ñoo xam ne fekke woon nañ daaw waaye tey fekke wuñ du seen yaafus wala tooñ bu ñu tooñ yàlla ba ya tax yàlla jële leen fi waaye ñun tamit du lu ñu defal suñu borom ba tax mu bàyyi ñu fi appa jotul rek ndax ida jaa ajalu hada yastaqiruuna saatan wala yastaqdimuun suñu borom day wax ne ba ma leen bindee dee laa jëkk bind ci yéen waaye dee moomu xamuñu kañ la fan la ak naka la ak na muy ñëwee ngal la nañ ko waajal waajal dee nag du ragal ko xam nga ko war a ragal ki la bind am loo xam ne dafa gàll sa los نلا بوتش سخه إن شاء الله سخلو ونغاي رجال دارا كي كوسوف نما يدون سندمبل ما يكلي تبت بنلا أتو بلو هاب السلام آمين يلا نكو يلا دفن تبارك كي جتاي بي دي زيارة دي أمبك تي نيو بني نيو تي سنيو كنامو سوبة سنيو كنامو خريت ñu bokk lépp fa tabaraka allah waaye nag خمنا في مدف كل شيخ ديد الحاج مالي واي بقنا جامو يلا يب واي راوتنا سنو قطو مام تسمى باي شيخ الحاج عبد الله دخمنا وحني لو ورا ووت ني ووتو لا تي كلا تي ووت مونو كو فاي واي جيم جي ووتو نا نيب تي كير تي تخاواي تي ييتي نام شيخ سيد الحاج ما دال نخ ني كير سوفو بوكي بقنا نيو خم لا دا فاي بري تانك بو waaye moo duxule kenn du koo laajte Tiwaawan ndax am na fa loo xam ne ma nga fa muy mandarga ci biir ak ci biti kon fa tabaarakallaahu ñu ñëwoon rek ah feddali si suñu kóllëre ak moom sabab fa tabarakallahu mu mel na lañ doon xaar agsi na ci jàmm maa ngi tàmbalee di wax rekk kër gi li fi nekk ci responsabilité te du dakk mu te ñaanuñ yàlla mu dakk la góor ga daal wax loo war a wuutu ñu wuutu la ca ñala ca wuutu mënoo leen fay te saa yooyu ñu woowee rek ci yiw kese te yiw du doy sa maam Cheikh Al Hadj Abbas na ko wax naan ñu naan ko noppalul mu ne noppalu amatul waaw noppalu amatul xaw ma kañ la te responsabilité bi fi mag ñi bàyyi ëllëg bu ma agsee ca ñoom danañ ma ko laaj. kon noppalu du am te fu ma nekk rek ñu ngi ànd ak man fa tabaraka baabu kon coono bi coono yi mbégte la ndax ki lay woo ci yiw wu mel nii munoo ko fay te innal xasanaati yuzhibna sayyiatihim waaye fa ulaayika yubaddilu llahu sayyiatihim xasanaat ci jotaay yu mel nii nga ko mën a ame wax naa bi ma nga fanaan Louga xëy suba ci suba ba léegi daanaka une fekk na ko ca ëtt ba mu nekk ak njaboot gi di waxtaan ba léegi bi may départ man daanaka boobu timis li ci des bareetul maa ngi ko romb ca ëtt ba mu nekk fa ak njaboot bi fa tabarakallahu waaye sant yàlla ndax ndono bi la ak responsabilité bi nga xam ne tey mom la ko mag ñi gàll ci loosam waaye alhamdulilah xanaa ñaanal ko yàlla rek waaw si lu lay ñaanal yàlla la sa bàyyi ñaanoon rek sa maam Cheikh Alhaaji Abdou Aziz ne wa umra qaafin rabbana wa nuuni wa zaayi hablana bi duuni huuni doyul mu ne wal amna wa sihata min kulli ma shagala la qiyam si yàlla la ko yàlla defal fa tabaarakallahu dañ ñëwoon rek dañ ñëwoon rek dégg mbir mi moo du doon kenn ci ñun ak njabootam fa tabarakallahu sa pap Maodo maa ngi fanaan ngeet manit sa pap Maodo ne xale yi Pikine yi dañ fa am lu mel nii soppe bu ay soppe sa maam sëñ Babacar Sy waxoon ko ko nag keroog mu ne ma da ah xam naa ne boo jógee nget boo toogee ba noppul rek nga doxantu fa ma ne kon naa jëkk fii jiitu la fa tabarakallahu suñu paree rek dem waaye may nettali rek ne fii bërëb bu rëy la bu yàggul rek ñëw naa fi njaboot gaañ fi di fi dundal tariqa bi waaye di dundal sa kër maam ci taxawaay ci yitte ànd na ko ñu baax ñii ñépp fa tabaarakallaahu incha allah le vingt cinq le vingt quatre bii ñu jëm waaye loolu yépp nu dëggale ko rek nii nga xamante ni noonu la doxale suñu digg ak moom moom ak uh, njóogu mbuub ak mboolem ngiraaneen mu nekk mbégte ci nun nu itam waa daayiratul muxtafin sunu coordination mu ngi fi xaj Maguette Ndiaye àndandoo ak mbokkam yu baax yi ah ñu ngi wax croquette amine yi croquette amine ñoom ñii ñoom ñoo ko taxawal di ko def man doonuma ci lu dul intermédiaire ñëw ni ma danoo bëggoon nga ñaanal nu sëriñ Abdul Aziz produit yi ñuy def ñu tuddee ko produit al amin mu nangul leen ko ñaan ca ah booba ak léegi tabarakallah ñu ngi ci yàlla na nekk ab usine ñu jaajëfal leen ci taxawaay yi coordination bi yëpp ñoom ñëpp ngi teew ak seeni collaborateur ñu ñëw itam fekk fi sunu mbokk mu baax mi doon jotal kàddu Ousseynou di Pap Sill woy juram di sama wëllëri di sama soppe bu ma jógee senegal dem New York woy juram moo may jëlsi moo may teeru moo may dalal alxaaji Omar Sylla léegi laa koy wax Moodu xam naa taxul woon sax mu miin te dama dégg ci Serigne Cheikh mu wax ni su la yàlla mayee njaboot te nga gis ni muy doxale yenn saay mu am ànd bu ñëw war ngaa xam ànd ba ngir sa xel dal ca moom ak la muy defante ak moom moo tax ma présenté ko Moodu ma ne ko kii kat def ko na sa doom ndax xam naa woy juróom loo bëgg ci xadara bi rek bëgg na lu ni toll loo bëgg ci Serigne Abdoul Aziz bëgg na lu ni toll ñoom ñépp ci loolu la leen nampatal moo tax moo ko gisee mu ànd ak Ousseynou dama ne ah moom day dafa fekk ni ñaar bu nu safaanoo du nu ànd de la yajtamiaani ñaar ñu de duñu en mukk de forces contraires ne s'assemblent jamais Réfère-le lol nak tabarakallah yalla y gëna sam a and yalla len te seeni mébéti wéyjur yéen nag ñi ngeen ko bokkal ci koñ bi yépp tabarakallah ngeen ci bis bi ah mu nekk ay yoon ñu ñëw fekk si leen fi ngir joxe ñu sëriñ bi bi mu demee it ngeen taamu nu wéyal ko nu ñëw àndandoog yéen weyal ko ngir ormal rekk kàddoom am dañoo xamoon loolu mu defoon ak Ousseynou bàyyi xel gum ko bàyyi woon xel rawatina képp kuy maasam te bokk ci daayira bi nu ñaan it cité bi yàlla na yàlla gën fi samp jàmm ak sutura te gën a euh, mottali dëkkaale gi ci rafet rafet yàlla na ko yàlla def sant ñi fi teew ñëpp it te bu bis bi amee ñëpp jël ci seen wàll def ko mu nekk bésu koñ bi yëpp ñi mën a ñëw teew ñëpp ñu ngi ñëw teew ngir rekk encourager xale yi boo amee sa njaboot danga koy encourager nu am mbégte itam fekk fi sunu boroom dëkk ca sunu dëkk bële di njaxate njaasaan di alxaaji moodu jaxate ñu ngi ko léegi lañu tourné rek gis ko waaye tabarakallah ko xam lañu séq séq ko ak sëñ Abdul Aziz ci wëllëre ci ànd ngir eh, kiiraayu sëriñ Babacar si ñoom ñii lu ne lañu seq di ko jëflante bokk tund wa ñii féete kër coon ñii féete njaxate ñii féete shérif lo ñii féete faneen ak faneen waaye tund wa yépp wanagi tiwaawan la te wanagu tiwaawan nag sëriñ Babacar si moom la yàlla dogaloon mag ñooñu daan faral di daje ci jàmm gën ca tool ya ñu taamu ñaan ko ndigal mu jox leen muhajirina wal ansaar ci dayira seen dayira boobu di mag ñi nga xamante ni boo demee ci ëttu yonent bi ni mu amee ay mag ñu mën leen a joxeñ ni ñi ñooy kibaaru saxaaba noonu la amewoon it ay ndaw ñu tudde leen sigaaru saxaaba كبار الصحابة سيدنا أبو بكر مولين جيتون صغار الصحابة سنو برنس سيدنا علي كرم الله وجهه موي كيلين جيتون يعني بدان وحتي حقا أنا مدينة العلم وعلي بابها ماي نيغو خم خم waaye sijiduna ali karamallahu wajahu mooy buntu ba ñu may accéder mu def ko imam shabab def ko itam mu nekk référence ndaw ya ndaw yi mu nekkaloon ak pastif yi nga xamante ni moom la suuxatoon ci ñoom aliyu moo nekkoon symbole ba danay faral di wax ñaari exemple yu may jël ci ñoom benn bi ci moom sayyiduna Ali benn bi ci Asma bint Abu Bakrin Siddiq ñoom ñaar dañu doy wane profilu ndaw ci wetu kilifa de la stature de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 16 ans fukki at ak juróom ben ki gënoon a mag ci ndaw yi top yonent bi ci lañu toll ci la toll won. 16 ans déjà jël leen ngeen jël âge fukki at ak juróom-benn ku ko am ci jamono bi defe naa fii ñu toog am na ku ko fi am de ku fi am fukki at ak juróom-benn fukki at ak juróom-benn ndax am na ko ah. waaye dama bëgg a wax rekk tolluwaay bi. ni muy toll image ndaw bu am 16 ans ñu jël def le symbole def chef d'équipe def le leader Ali mo nekkoon leaderu ndaw yi à 16 ans lañ ko sélectionné def ko ko ci mbaaxu yàlla ak li yàlla dogal ci moom yonent bi ni may néegu xam-xam bunt ba ñu may jàlle sayyiduna ali mooy bunt ba beneen profil ba mooy profilu ali ñëw mat ko mat ko parce ndaw la mat ko parce que yonent bi moo ko yaral boppam parce que responsabilité yi ndaw wala nangoo ci wetu kilifa moom bi mu taxawee di nangoo na masuliyat yooyu aliyu six ans la am mujj mu nekk symbole ba Aliyu ñu def ko mu nekk leader à seize te leadership bu ko bu ñu ko nemmi ko ci jëmm jëmm jël lu mu ndawee ndawee teewul yàlla def na ci moom ab cam aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années ku juddoo fa nga war a juddoo ñi la war a jur jur la di ay nawle ñuy ñaari nawle jur la wax dëgg yàlla boo taxawee jiitu dana war a mën a jaadu am ñu topp sa ndax li war a jiitu ci yow yépp jiitu na ci yow moo tax moom Seydina Ali karamallahu wajhahu yonent bi def ko mu nekk symbole ndaw yi wëlbatiku jël jigéen jànq wala sax suñuy wax ci âge booba tout tànk la tout tànk yegg ci juróom-ñeenti at yeggul sax ci fukk juróom-ñeenti at la jël tànn jigéen joo xamante ni rôle bi mu joué ci wàccaayu hijra dafa am solo ba nga xamante ni historiens yi dañ ko relater pour wane à 9 ans nan la yonent bi tëralee stratégie boo xamante ni bu gon na mucc ci loru Quraysh dem na ba sentir insécurité ci Makka fu muy dem dafay war a ànd ak ay bodyguard fu muy dem dafay war di bàyyi xel fan la war a dem ak fu mu warta dem ndax léegi tentative d'assassinat commencé ci moom door nañ ko fekk nañu sax Seydina Ali karamallahu wajhahu ñu jàpp ni yonent bi la di ko tëru di ko tëru ba ñëw fekk ko fi mu tëdd bi ñu boccee jaasi ji ba nar ko dóor la muri sër bi gis ni Ali moo tëdd ci palaasam Quraysh jaaxle ni Ali moo remplacé yonent bi ci tëraayam pour bëgg rek yonent bi mucc ñu ko lool parce que boobu conviction ndaw lu ko am ci âge bu toll noonu ndaw loola war nañ koo mën a boole ci am génne te ca la bokk ndax cousin woom te la bokk def kenn ku ne rôle ba nga ci joué joué nga ca waaye Asma bint Abi Bakr Siddiq daf di jigéen neuf ans la am yonent tànn ni ko sama stratégie wu hijra ci yow laa koy jaarale pour tromper vigilance Quraysh mu woo Asma li mu bëgg yóbbu ci tukkeem mu di yóbbalu yoonam bañ na ku ko xam bañ na ku ko tëru bañ na pour mu euh, làq seen vigilance ñoom waa Quraysh mu dem jëli Asma mu داو سو soo xamante ni neuf ans la mu di ko këfalal muy woddaayoo li nga xamante ni moom la yóbbaale pour wajale ko hijram pour def émigration jëm ci Medina al Munawwara la ca Medina Yatrib ñu gis ndaw si muy daw ak a dugg ci tranchée yi di dugg kër génn ñu naan waaw kii lu muy dox xale buy fo ko jàppe te fekk na li muy déroulé mu ngi koy déroulé ci xaqiqa boo xamante ni waa kaw asamaan yëpp ñu ngi àndandoo di seede taxawaay bi muy def te juróom-ñeenti at yeggul sax ci fukk jigéen la fit wu ni toll ku ko dénk jëmm yàlla ci kattanam mu jox ko Asma bint Abi Bakr Siddiq muy àndandoo di dérouler déroulement ba di tromper vigilance Quraysh di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw di dem ak ñëw di yóbbu li muy yóbbu ñu foog ne xale buy fola xam nga li xewoon ci eh, jeu d'enfant yooyu ñu tudde ko palaline ñu ngi jàpp ni xale buy def palaline te fekk na moom mu ngi def déroulement boo xamante ni xam na ni kii mu koy defal su fi doxee mbir ma sotti yàlla dana wëlbatiku soppi dundam mu nekk symbole yàlla ca la dëgg soppi dundam mu nekk symbole tegtal li muy doon doon jigéen li muy ndawe ndawe ci ay at waaye fit wa mu àndal ak fulla ja ak discrétion parce que eh, ndaw su demee ba yegg foofu ci discrétion da nga mën a jàpp ni ah ndaw li kat boo ko gisee xam ni du ndaw kese kese mel ni nag loolu su fekkee ni man damay campé suma waxtaan tey ci fii waxtaanuma waajur yi xale yi lay waxtaan waaye waxtaan bi may def ak xale yi waajur yi faw ñu seede ko ñu xam ni ah bu dee gan ñëw fii wax dëgg yàlla ñëw moo pour sàcc seeni njaboot waaye damay ñëw pour contribuer ci li nga xamante ni moom la yàlla sabab ci ñoom ñu di ay ndaw soxlawoo encadrement di ay ndaw soxlawoo ku leen gunge wéttali leen ci seen yoon di ay ndaw soxlawoo ku leen tegtal yoon wu leen di mën a may ñu mën a dëgg ca loola tegtal yooya samp ëllëg bi dootul mab loolu yaakaar naa ni su fekkee ni dañ koy wax fay delloo si wax rek ñu wax tuuti de l' éducation islamique delloo ko ci jaboot al abna al abna amanatun wadaaha allahu min bayna yaday aba wa hum mas'uluuna anhum فإن أحسنوا إليهم بحسن التربية كانت لهم المثوبة وإن أساءوا تربيتهم استوجبوا العقوبة فعن فعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته و والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته نانا نجابوت دوم نانا دينكاني لا دينكاني يالا مو دينكوكو اي ويجورم نانا نيونيو نيوكو دينك نك lu xew ci njaboot gi ñoom ñooy responsable nee na su seen yoon méngoo ak yoonu yiw dañu xam ni la def yiw tege mooy yar ak tàggat bu rafet ba nga xamante ni moom la wéyjur moo xam bu góor ba moo xam bu jigéen ba def ci ñoom neena na su fekkee ni def nañ ko nag nañu xam ni yàlla dencal na leen récompense boo xamante ni kenn du leen ko téye jot nee su fekkee ni dañu ñaawal seeni yoonu tarbiya neena nañu xam ni yàlla am na lu mu leen réserver ci mbugal te ku ñëw daa jot mbugal ma su fekkee ni defuloo sa warteef ci njaboot gi ci ndénkaane li mu ni ibnu umar radiallahu anhu kenn la woon ci saxaaba yi wax ni ah man de dégg naa yonent sallallahu alayhi wa mu wax ni képp ku ne ci yéen nangeen xam ni responsable ngeen te ëllëg

nee góor gu samp kër yàlla may ko ay doom responsable la te nee ëllëg daañu ko laaj ci responsabilité am ana nan la taxawee ci njaboot yi neena jigéen soxna wala boog wëyjur bu ci ne benn la jigéen soxna wéyjur nee na moom it responsable la te dénk nañ ko responsabilité boo xamante ni ëllëg yàlla dana ko laaj ana foo jaar ak njaboot gi nee na kenn ku ne daal yàlla am na lu mu def ci yow def la responsable te responsabilité bi danañ la ko laaj ëllëg mu ni loolu nag su fekkee ni dañuy ñëw di ko waxtaanee tey nee dañu bëgg rekk xuusaat tuuti ci yar lan la doon waaye itam bu ñu ko dee waxtaane dañuy yar ana fan la ko waaye itam danañ indi mushkilaat yi nga xamante ni tey problématique la xam nañ ni ku seetlu yaru réew mi jëm ci njaboot yi am na problématique boo xamante ni mënul ñàkk ñu di ko poser mooy la fayit de l'éducation fëchal dafa am faillite dafa am ci yar ak yoonu yar bi mag ñi doon yare njaboot yi itam gis nañ ci ñoom ni waajur yi tollu nañ ci jamono boo xamante ni bëreetuñu jot bu ñuy consacrer seeni njaboot ngir diis diisu yenn bu tegu ci seen mbagg ndax ñoom ñoo wara a dundal gannaaw kàttanu yàlla ñoom lañu ñu dénk ñoo war a tàggat gannaaw bi yàlla paree ci njaboot gi waaye ñoom ñoo ñu itam dafa am lu leen tegu ci seen mbagg ba mënatuñ koo taxawe ñu gis ni itam njaboot yi léegi li ëpp ci seen dund ak seen yoon yeneeni loxo ñoo wuutu wayjur yi ba nañu wara tege ci njaboot gi seen loxo yi bopp ndax ku njaboote yaa gën a xam ci sa njaboot ba bu yar jekkee ci moom yaay ki wara a njëkk taxaw pour yar ba nga teg ko waaye li ñu seetlu daal mooy yëg nañ ni li ñuy tuddee at tarbiya faillite daf am éducation léegi nekkatul éducation lu nekk dajale éducation dem nañu ba de soppi ko def ko piège té lan mooy tarbiya baatu tarbiya wax nañ ni bat la bo xamanteni ni ñu ngi ko ràbb ci baatu arab bu ñuy tuddé rabba rabba moom mooy verbe ba di firi ku ñuy sol processusu sol ba ba ñu ko dooree di ko sol ba keroog mu war a fees nu feccali ko mu fees loolu mooy firi rabba su fekkee ni danga ko def ci butéel rabba yaa ngi sol butéel bi ngir mu fees dell ak ndox processus la su fekkee ni danga ko delloo ci saaku ñu ni saaku bi kat moo taaje waaye laata mu mën a taaje dafa fekk dañ caa dugal lañu ca dugal yépp ca muy le contenu bi ko feesal dell ba tax saaku bi mën a taaje ne bu ca dara nekkul du taaju dafay tëdd un sac vide kenn du ko taxawal waaye bu taxawee rek dafa am luñ ko sol processus bañ koy sole nag ba mu mën a fees dell nga def ko ba mu fees loolu lañu ñu tuddee ba ñu jël baat bi def ko ci mu di tarbiya tarbiya ñu firi ko mooy éducation yar tarbiya mooy ku nuy sol di ko sol mbaax di ko sol ngëneel di ko sol njub di ko sol xam-xam di ko sol xàmme ba keroog mu feesal bu xasee feesal nag bu boobaa mën nañoo wax ni processus éducationnel am mat na yenn sayit nga taamu éducation ba mu jëm ci wàllu àdduna loolu lañu tuddee temporalité yenn say nga taamu yar ba mu jëm ci wàllu ruux loolu lañu ñu tuddee spiritualité te ñoom ñaar ñépp nag bu ci ne njariñ la ruuxaaniya su fekkee ni dañ ko indi dafay delloowaat tëgg njaboot gi ba fexe lu ko liyee ak boroomam ba bu demee bay xool xool ba muy xool dootul nekk rekk un regard horizontal mais ne que un regard vertical Soudain, un regard horizontal a le na parce que newu ci Donc, Adam, pour mon matal liaison digganteem ak da il bi muy du yam ci waaye daf koy xool nag mu taxaw su nekkee un regard horizontal mooy tax am na lu ko lié ak boroomam su dul loolu rupture am sa digganteeg sa boroom bu ñu demee ba sa digganteeg sa boroom xamal ni yàlla moom amatul ci yow dara ni jameer ca tool yi ba lu fa war lu fa def ca tool yi mbaa doo nga tax mu ñëw buleel ca toolu suñu lu mu xam mu defar li ko ngir cofeelam waaw la ko ak moom fu mu la lay jox teral bëgg teral loolu xam nañ ko ci moom koy ñaanal na lu mu bëgg a def dana ko def te amu yàlla yi rek lay liggéey am lay teral defal euh, nga ku ne bëgg euh, ak li biir rendre service yaa baax daal moom daal ku baax la teranga bàyyi ko ak njaboot la jubal seen yoon tabaarakallah ñoom ñépp e, fëgg bu denc soxna ci néew ci gannaaw man waxaguma sax mu ñëw nag ni ma papa soxna dafa mucc waaw Ousseynou kaay kaay wax man xaw ma ko kaay wax ma mu ree waaye affection rek moy sunu ak bi man na nek nek nijaay ci man sopp xarit li sa jëm li yal ya ko xamul nga am fier bu fekkee ni da ngay expression tijaan faut jamais à man lii amal bul am mukk la déedéet boo ko defee ajmain salaatul fatih Cheikh nan bàyyi xel ay waxam tey topp ay ndigalam ay ndigalam sama turandoo lum nu waxit nan ko def te xam ni lor du ca am àllarba ca salaatil isha naan ma yëgu tiis wi dal kër Maodo maan ma gëlëm ndekete magu baay abdul aziz yi aminul xaw mi moo làqu nit ñi jooy ba am nañu xam ndikete yoo magu baay abdul aziz yi aminul xaw mi moo làqu nit ñi jooy ba am nañu xam sëñ abdu moo ko jullee si yéen sa kenn desul nga xam ni kii du ko ndaw billahi moo waaw alhamdulilah mbokk El Vision Média comme ni ngeen ko gisee ñëw nañu ci bis bi nga xamante ni soldaaru al amin moo ko amaloon fii ci digg cité Mandela di ko amal at bu nekk nag ñu ànd ci ak ay mbokkam ak ay soppeem yoo xamante ne tey dañ ñëwoon teew ci bis bi ñu bëggoon xam sëñ bi tey ak euh, nan nga gisee bés bi ak bi ci teewee daanaka bi nga yëngalee ñi ñëpp moom macha allah ban message mooy bi nga xamante ne moom nga bëgg a jox waa Cité Mandela. waaw mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi ñuy ñëpp ziar ñëpp ah di nuyu waa Cité bi di nuyu Hadj Modou Khoule waaye di nuy Ousseynou bi nga xam ni moo organisé li ah di leen wax ni wax dëgg yàlla programme bi am na solo am na réussite. Euh, tàmbali yomb na waaye tëccal moo jafe kon yàlla may na ñuy tàmbali ci bisimillahi rahmaani rahim eggaleek alhamdulilahi rabbil alamin waaye lépp nag ñu ngi ko amee ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nag ci daraja sëñ Abdul Aziz Al Amin nga xam ni tabaarakallahu mën naa ni bis bi moo ko moom ndax ki ko organisé di tabaarakallahu Ousseynou moom ñëpp xam na ni cofeel bi mu am ci sëñ Abdul Aziz te damay wax ni sëñ Abdul Aziz la sëriñ Babacar si wax Seydina Cheikh ni mu walan yamuta man yuhibbu cheikhana illa isa saara walim itina li mu wax ni Seydina Cheikh képp ku ko sopp même boo bokkul ci tarixa bi bala ngaa dee nekk waliyu waaye sëñ Abdoul Aziz it képp ku ko sopp même boo bokkul ci tarixa bi bala ngaa di nga dee di nga nekk waliyu macha allah yéen a ko déggandoo képp ku ko sopp balaa ngay dee doon waliyu ah, kon nag loolu ah, dafa am dañuy wax alhamdulilah rek comme ni ko Cheikh waxee rek la ñuy wax ni Ousseynou dafa neex a àndal mu nekk koo xamante ne am na yar am na teggin depuis ba ba léegi Euh, chaque jour mu woo ma ñuy déggante kon bis bi bu ko amee li ñu mën a def mooy ñun soppee du kenn mbay yëpp ñu ñëw taxawu ko gars yi ñëw nañ ci suba gi jàppale ko ci baas yi jàppale ko ci lépp yi ah yéen tamit ñu jaajëfal leen ndax euh, lii ngeen di def nii euh, nekk ay ndaw ba pare xadara bi rek ñor leen dañ leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm defal leen sutura comme ni ko Cheikh waxee rek sëriñ Abdou Aziz Al Amin bëri ko diw tiir la loo dugal sa loxo rek jàpp nga ni yaa gën a tooy la loolu rek lañ ci doon seede di jégalu bu baax a baax macha allah. macha allah jërëjëf mbokku Elvision yéen a ko gisandoo. ni yatalakkaluuna salaatakal xusma allati maa baadaha lin jinsi min xurbaani summa salaatu ala nabi wa ali min rabbihi fi rabbihil xannaani maqaala ahmadu li tiijaani munsidan fa ilayka yabna muhammadin naadaani sëriñ Mansoor yaa yor xilaafa gi anta kutubu rabbaanu nurul basairi yaa di seyxu tijaanu maaleykum salaam wa rahmatullah euh, mbokku Elvision mbokku Sénégal bu ngeen déggee kilifa gi zikr yim fi def xam ne tey dañuy ànd di jëriñu rek ndax fay du faydu ya képp ku ci nekk da ngay jëriñu rek maanaam jàmm ak xéewal ak salaam rek la amul dara loo xamante ne dafay lore bu ko defee ñu daal di jàll ci ki nga xamante ne mooy kilifa euh, Ousseynou ñu gën ko xam ci soldaaru Al Amine moom mi nga xamante ne tey kenn dootu ko présenté fii ci Cité Mandela comme ni ma ko waxee ci mariage bi rek yenn kilifa yi moom bu ngeen ko amee euh, forcément fu mënti doon euh, da ngeen di nekk ay légende parce que ñoom kilifa yi ñoo njëkk a doon légende di jàppale ñëpp di taxawu ñëpp ba tax na tey ñu daal di euh, doxantu xool ki nga xamante ni moo di Serigne Khoule di waajur ci soldaaru Al Amine ñu nar ko laaj tey nan la bokkee ak ñun bés bi waaye lan la yëg ginnaaw si ki nga xamante ni moom mooy monsieur Khoule dafa doon soppe di doon taalibe aussi boo xamante ne kenn dootu ko présenté kenn dootul présenté cofeelam ci waa Tiwaawan donc ñu daal di lay nuyu sëñ bi. maa ngi leen bu baax a baax ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci Yonent bi ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi di ñaan jàmm ci Elvision yàlla yëkkati ko ba tere ñiy coow ci réew mi yal na leen yàlla paasale foofu. mu nekk équipe yi ru jeex bi yu bëree bëri yàlla barke ko yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ndax bi ngeen commencé liggéey yàggul waaye mel na ni yàgg na ndax li ngeen woyofal seen liggéey di andi ñëpp di leeral ñëpp ko am xew ngeen ñëw jàpp ko ba mu gën ba ñëpp seen xel dal seen xol sedd yàlla na leen ci yàlla jàppale gën leen a kàttan di gërëm nag euh, Omar mi woy léegi du dara moom liggéeyam yëpp ñii dañuy jëm Ndar ñi jëm Dakar moom mu jëm ci Cheikh Ahmed Tidiane di ko woy di nekk géwélu yonent bi di woy yonent sallallahu alayhi wasallam kon kooku da ngay ñaan yàlla rek fanam gudd waaye daanaka moom doomu ñëwee kenn du ko wax yàlla na rëy yàlla na fanam gudd incha allah lu mu bëgg na ko am ci kàttanu yàlla parce que am na yar ba pare bëgg na la muy def te gëm na la muy def te it bu yore micro rajo yi nangu ci mbooloo bu bu wooyee du doo bëggaat keneen jëraat micro am kooku yàlla defal na ko pare yàlla na ko yàlla yokk euh, di remercier Seydou Yuraas Njaxte Njaasaan ak euh, ñi fi nekk ñëpp ak bébé Fatou itam maa ngi koy remercier bu baax ak Mami Diop Mboro donc di wax ni Ousseynou ñu ngi koy gërëm di sant xelu yëpp waaye surtout Ousseynou parce que fi mu jëm dama yombalal ci lu bari parce que bi mu nekkee xelu lañ ko doon jël di ko yóbbu coote di ko yóbbu ay añ tool sëñ Mansour moo gis loolu ba yeewu ci màgg ci loolu nekkal ci boppam ba tool ab du ba ca bulal sax day xëy rek ni ma maa ngi dem am naa essence am naa mburu yóbbu fa dem d'ailleurs lu xew ci Tivaouane léegi kenn dootu ko xaar te sëñ Mansour day wax naan daraja bu doo jarul dara daraja doo ci am dara moom jara jaraja dara na ko ci dara te incha allah dina ci am dara ndax sëriñ Abdou moo ko jàppal bisam doom ji ñëmul bay ñëw ndax baay bi da ko ne woon dayoon ma ba léegi loolu lay continuer incha allah mu nekk bis boo xam sëriñ Abdou jàppal bis yombul léegi ku mu jàppaloon bis tey doom yi rek mën a jàppal waaye ja sëriñ Abdou ma jàppal bis doo na tiitar ci àdduna bi doy na tiitar Sénégal kon dañuy wax ni ñu ngi leen di gërëm di leen sant di waxee ñi des ñëpp na ñëpp jublu. demti Tiwaawan ñun fañu dëkk fa ñu juddoo ci euh, tarixa Cheikh Ahmed Tidiane foofu day ànd ak ñoom doo perte benn yoon ndax seex mooy set yonent sallallahu alayhi dafa yor loo xam dani lii ku ko yor di nga faran ak saa maam mooy salatu fatiha heure boo ko jëfandikoo xilaas sàpp boo ko jàngoon tey ba mu jeex wala nga wér téere bi foo tëdd moom boo waatee ne maag yonent bee faran ndax fu mu faran fa la rasul lay faran wàcc nga kon nag lu mel noonu ku ci nekk yàlla indi la ci ndax ku nekk sa rek la ah da ngay xam ni rek vraiment yàlla moo la jagle loolu nga nangu ko te gëm ko nangu ci yëngatu su fekkee bu yàggee yëpp ñëw ñi fi ñëw lépp ñëw lépp lekk andiwuleen Omar mii daf ko yëg ameen programme du ko dagg yëpp ñëw tey dafa naroon a jël micro bi dafa temps xat waaye yëg ko ak yëg-yëgam la ñëwee ci biir kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ci seen taxawaay di ñaan ci yàlla mi nga xam ne moom rek moo mën a jàppale nit yàlla na leen yàlla jàppale jàppale ñëpp jàppale réew mi jàppale Sénégal jàppale Afrique jàppale Europe jàppale àddina bi yëpp fara waaye suñu réew mi la yàlla na ci yàlla wàcc jàmm muy oppoir bi yàlla na am jàmm oppoir bi opposition bi yàlla na leen may jàmm te réew kenn rek ku mën a jiite kon ku fi yàlla teg yàlla na la yàlla jàppale teetal la ba nga jaxal keneen ñëwaat jàmm jàmm xew ci réew mi bal bañ fee tàkk ñoo bokk ndek bàyyi ñu bokk lépp di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatullah ku dégg kàddu yi xam ne kàddu kilifa la kàddu la euh, kàddu nit koo xamante ne la dafa bëgg jàmm ci Sénégal yépp ndax ñaanal na opposition ñaanal parti au pouvoir ñaanal ñi nga xamante ne ñooy ay citoyens pour am ñu am euh, daldi am donc euh, mbokk Elvision Média mom mi nga xamanteni euh ken dootu ko présenter muy euh, monsieur Roulé donc dégg nañu cadeau mi donc vraiment ñu diko ko rafetlu kàddu yi mom day wane ne rek li ñi ñëpp di wax waaw donc euh, monsieur Khoule ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu kàddu yi bu baax a baax a baax mbokku El Média kii ma jàkkaar lool ku ko gis xam ne gis nga ko bëgg Al Amine moom mi nga xamante ne moo tuddee boppam soldaaru Al Amine nekk benn jeune boo xamante ne référence la ci biir jeunes yi parce que day def chaque année mu daal di def li nga xamante ne mooy euh, sant waa euh, suñu borom li nga xamante ne mooy aussi màggal waaye sargal waa Tiwaawoon moom soldaaru Al bi nga xamante ne bi nga organiser lii gis macha allah succès bi mu am gis macha allah waa Tiwaawan niñ la wuysee sa mbokk yi sa am di jàmmee tey lan ban lan ngay yëg tey incha allah bi nga ko bi nga defee li nga xamante ne mooy mbir mi ba pare. mbaalo buñ ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sant bi sant suñu ñaari waajur dañuy sant sunu sëriñ sunu xarit sunu maam Mawlaaya Cheikh Abdoul Aziz Al Amine ginnaaw yàlla bu li amee ak suñu waajur lépp moom la quoi lépp moom la tey kontaan bu baax a baax gis nañ bu baax waa Tiwaawan waa Thiès waa Dakar waa Yëmbal tey ñëpp ñu doon daal vraiment tey damaa kontaan trop trop ba mu génn yi sax xam ne may waxee sax damaa kontaan sama xol seet na guy guy guy vraiment di am mbégte seen bu baax a baax a baax waaw kon yéen a ko déggandoo xolam dafa sedd mu daal di kontaan bu baax a baax nit ñi ci li nga xamante ne mbokkam yi noonu lañ ko wuysee waaye it mu doon di def loo xamante ne lu am solo la te maanaam ginnaaw si kontaan bi nga xamante ne kontaan nga ko gis sa mbokk yi niñ la wuysee nu tey ban ban ban ban message moom nga bëgg partage partager ak sa mbokku taalibe yi nga xamante ne ñoom nga sekkal liggéey bi. waa sama mbokku partage sama mbokku taalibe yi li ma bëgg a ñoom mooy maanaam xam nga nan xam ñëw. góor ñu góorgóorlu affaire bi xam nga du du naxe quoi te tant que mosoo ko rek doo xam la nekk sa biir te ñun mos nañ ko xam ne la nekk sa biir moo tax fooy ñu ko caaxaanoo di lancer appel di woo sama mbokku taalib yëpp ñoo xam ne nekk am nga droit wéeru fa la neex waaw ñun wax dëgg yàlla kër Seydi kër Seydi Hadji Malick mooy doy fa leen wéeroo fa leen rootee fa leen naanee di si woo ñëpp waaw taalib yëpp ñu gën a ñaaxal gën a góorgóorluwaat ndax amuñu leen lu dul lii nii macha allah kon ñoo ko déggandoo moom mu ngi woo ñëpp ku nekk nag mën nga dem ci fa la neex waaye la mu saf kaka macaka mën a xam eh, loolu la olof Njaay wax ba tax na moom boo gisee sax ki nga xamante ne mooy kilifa gi bi mu teewee wax ji mu wax ci ñoom ñu war a xam ne kii tey référence la tey jeune la boo xamante ni vraiment li ñu war mooy di ko ñaanal donc moom soldaaru Al Amine ñu di la sant di la gërëm waa El Vision ñëwoon tey pour ànd ak yow ci bés bi ñu bëggoon xam tey sa kàddu mujj ci bis bi eh, lan lay doon. waaw di santaat yàlla bu baax di santaat sama papa bu baax sant sama yaay kër yi Adja Fatou Diallo ko sant ko ñaanal moo xam ne bëgg yàlla ko yàlla defal sunu yaay Adja Marete Diop di sant sumay rak ak sumay mag kaw ba suuf di bëggee ñëpp di ñaanal waa vision télé bi yàlla dem ba nekk ay télé télé bu suuf si ci Sénégal si barke Seydina Ahmed am naa kontaan bu baax surtout yow di la remercier bu baax a baax a baax a baax xam nga di bëggee ñëpp daal waa comme bi yëpp am seen fay booy ñoom Ngiraan xam nga Abdou Ndiaye Serano beneen Ameth Diop si suba ba léegi bàyyi nañ seen yitte xam nga ñëw taxuma si bés bi quoi xam nga amu leen fay amu seen fay quoi vraiment kontaan trop. jërëjëf soldaaru al amin kon moom it kontaan na ñu li ñu war mooy ñu nit ñu daal di kontaan rek ndax moom mooy borom bés bi donc mbokku El Vision ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm fas yéene ñëw nag jël témoignage soxna. ki nga xamante ne mooy soldaaru al amin bu dee mën na nekk bu sumee koogul léegi ñu daal di fas yéene am ko incha waaw mbokk El Vision Média fii ñu toog nag mooy euh, fi nga xamante ne mooy néegu soxna aram soxna aram nag di soxna euh, ki nga xamante ni mooy soldaaru al amin mi nga xamante ne tey moo amal bës bu am solo bi donc ñu nar ñu ñëw fas yéene jàkkaarloog soxna aram laaj ko tey nan la gisee bës bi nga xamante ne boroom këram amal na ko fii ci cité Mandela. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp bés bi moom kontaan rek parce que franchement bés bi réussir na di ko ñaanal nag yàgg na koo taxawal di ko ñaanal mu yàgg koo taxawal ay déwéni déwéni déwén ci barke sëriñam sëriñ Abdou Aziz Al Amin ci barke Al muy mu di ki nga xamante ni jëkkëram daf ko bëgg ci biir xolam donc tey comme ni nga ko gisee ah, moom mi sa jëkkër mu taxawal lu ni mel ah, yàggul tuuti it ah, yàlla def na wàccee na fi xewal mu doon seen njaboot ngeen mu delloo tuddeewaat ko sëriñam loolu di cofeel rek boo xamante ni moom tout le temps da koy continuer di wone ma bëggoon xam tey yow boo amoon tey maanaam li nga xamante ni bëggoon nga ko wax sa jëkkër ci li nga xamante ne mu ngi mooy li am solo li nga xamante ne mu ngi koy def mooy lu baax ci kër Tiwaawan gi lan lay doon. nekk na xale boo xam ne am na diine wax dëgg yàlla am bëgg na tamit mbokk parce que sama doom nijaay la sotti ceeg def ci la kër gi dama fee ñibbi sama kër la mais yëng na nit man mën naa ni sama moroom la rek parce que nekk na boroom kër boo xam ne man ak moom ay moroom la nekk di ko ñaanal tamit ah parce que yàggul dara. yàlla may na may na nu tout tànk bu ko sëriñam mu nekk loo xam ni tamit lu ma neex la wax dëgg yàlla di ko ñaanal nag mu dem ba doom jooju mu dund bay fekke barkem waaw dund ba mu koy yóbbu màkk ak mbooleem jullit ñëpp fekke waaw. waaw xam nga soxna Aram a ngi noonu moom moom lu mu wax rek mooy lépp luy neex jëkkër ji neex na ko kon soxna Aram boo ko gisee ci reetaan xam ne soxna Aram macha allah dafa jonga ma dafa mën booram xam naa nag ma sàcc tooñ la rek waaw bu dee nii la rek moom kilifa gi xalaatul am ñaareel ba ñetteel. waaw donc soxna Aram tey boo amoon benn kàddu boo xamante ne moom ngay tëjee maanaam tey sa kàddu gu mujj ci bës bi lan la ak loo xamante ne ba bëgg nga ko wax sa boroom kër. waaw di ñaanal ñëpp di ñaan jàmm rek yàlla yokk xéewalam ndax xam naa ni wax dëgg yàlla tabarkaala macha allah lépp lum am rek bokk na ko man ak ñëpp nag du man kese maa ngi koy ñaanal daal yàlla yokk xéewalam mu saawaan baawaan ci barke sëriñam macha allah ñu mu ngi ñaanal borom këram yàlla yokk euh, wërgu yaramam yokkal ko wërsëg yokkal ko jàmm ak salaam ci barke al amin mi nga xamante ne moom la bëgg ci biir xolam kon mbokk El Vision yéen a ngi noonu tey ñu ñëwoon fi nga xamante ne mooy bésu soldaaru al amin ñu nar ko bokk ak yéen fes fesal ko ak yéen donc jërë ngeen jëf ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.